ومحبة رسوله أكبر ينتم علي عليكم الصلاة خوال والسلام المج والله بنت بدي جانجلة بقي الله أكبر ينتم بسم الله lu jafe ngi noonu ñu ko yàlla may may lépp waaye yombul qaala wax na allahu la azza na wa jalla te màgg na wa man yuttee ku topp allah yàlla wa rasuluhu ak yonentoom dafa bëgg wax ne loo bëgg da ko topp kon ku bëgg yàlla ba topp ko bëgg yonentu ba topp ko nu du xilu danañ ko dugal jannaatin ay aljana tajri dana daw min taxtiya ci aljana ya al anhaaru sew ndeya lii mooy résultat mu bëgg yàlla bëgg yàlla résultat ba mooy topp ko ndax koo bëgg lim bëgg moo lay intéressé te boo bëggee yàlla topp ko fay ga mooy mu dugal la aljana yoo xam ne nii suuf ga ay sew ne fay daw yi muy màndargaay bëgg yàlla borom bi subhanahu wa taala ci kàttanam ak ci xereñam ak ci dooleem dafa bind àddina indi ay lay ak i kawtéef yu leer nañ yu lay war ne moom moo ko bind li gën a foor ci doo ci àddina mooy doomu aadama gis ngeen lu fi taxawal ñoo ko fi taxawal te gis ngeen ne doomu aadama dafay sosu ab mën yu ngay gis mu am mën ni ba jugee fa dem ci lumbu deret jugee fa nekk suux jugee fa nekk yax ñu muur koy jàpp ak i der bind ko bind bu rafet bu yéeme fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin loolu xam nga ne defarul boppam doomu aadama boobu dafa am ku ko sos kooku ko sos mooy yàlla damay wax rek ne bu la oto romboon rek nga mu wóor ne am na ku ko defar doo sikk sakk kon nag boo gisee àdduna bu rafet bu yéeme bii nga xam ne am na ku ko defar te foo taxu koo jub moom la yàlla wax afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna na leen bi ngir foo di ngeen delluwaat ci man déedéet kon yàlla foo taxu koo jug ko tax a jug mooy bind jaam yi ngir ñu jaamu ko ngir ñu jaamu ko maanaam ngir ñu xam ko yow nag boo bëggee yàlla li tax yàlla bind jaam yi loolu rek ngay bëgg mooy jaamu yàlla ak xam yàlla looloo la ñor leneen lu dul loolu ñorul la yàlla nag defal la bakkan yow doomu aadama buy bëgg mën a bëgg ba mën a bëgg lu wuteeg li yàlla bëgg ngir feeñal ndax yow yàlla nga bëgg wala sa bopp nga bëgg feeñal ndax yàlla nga bëgg wala xéwalam yi nga bëgg ndax xéwal yi la jël def ko sa bakkan di ko bëgg te léegi-léegi moom xéwal googu leneen la ci nam lu bokkut ak li nga bëgg bu fekkee bu la yàlla xañee nga mer bu la yàlla joxee nga gërëm bu yàlla dogalee nga triste wu tumuranke lool waaye it yow bëggoo yàlla loo def it du saf yàlla ndax lu yàlla def du la saf yow it loo def du saf yàlla boo bëggee xam foo toll yàlla xoolal fu la yàlla toll ndax li muy dogal neex na la war a déet bëgg yàlla nag bu dëggoo ci nit dootu bëggati dara lu mooy lu yàlla bëgg xaalam dafay dem ba niroog xaalu Cheikh Tidiane mi yoon wax naan innama ad'u bi lisaani wa qalbi mustaslimun lillahi sama làmmiñ bi mooy ñaan waaye sama xol bi jébbalul na yàlla bëgguma dara sàkkuma dara yàlla defal lu la neex ñaan gi dama koy def ndax tegginu shariatu la yaa ma ko sant waaye man soxluwuma leneen loo dogal rek loolu laa bëgg yal nañ yàlla yegg rek boo lottee nag ba lot am nga droit ñaan yàlla am nga droit bëgg lu baax waaye nag su yàlla dogalee safaan ak li nga bëgg gërëmal loolu gërëm ko mooy lan mooy bul wax mukk loo warul wax bul def loo warul def du ñëpp a ci dégg lu xew attan nañ ko parfois da nga bëgg dara waaye da ngay lottu ci doo ko attan dégg nga da ngay lottu ci doo ko attan yow doomu aadama ba nga bëggee sa bopp xoolal da ngaa fàtte say cër tey loxo bii boo amoon ab taab boo ñemee da ko bësal sa bopp muy métti ba bëgg dee ndax loolu mooy loolu mooy jàmm yaram bi te yow yaram bi intéressé pas loxo bi métti na ci loxo bi waaye nag loolu moo gën ci pour yaram bi yow yaram benn inte da nga koy bës boo ñemee loolu mooy aarifoon yi aalu aarifoon yi billaahi ñoom bu lu métti ñëwee te fekk loolu la yàlla gërëm ñoom dañ dugg duggal seen bopp waaye léegi-léegi nag mu wóor na sa tab dañ ko war a bës waaye ñemoo ko bësal sa bopp parce que attanoo coono ba te ki koy bësit bu la ëpp doole nga fi tëndiku parce que attanoo coono ba waaye bañoo ko nag merewoo ko sa bi tàngut da nga koy jox koo xam ni mën na laa te bës ko te ci man dara su ko bësee ba pare bu koy bësi da nga yuuxu danga nga siiku da def lu nekk waaye soo paree doo ko mere da nga koy gërëm doo ko dog da ngay kontaan ak moom waxtaan ak moom defa moom lépp noonu la yàlla noonu la mel bu fekkee yàlla dafa dogal loo xam ne lii attanoo ko da ah, da am tiir siw dana métti ci yow da nga jaaxle fekk da ko attanu da ngaa lottu waaye bañoo si sa biir xol ku lottu ak ku bañ du benn ki bon nag mooy koo xam yàlla dafa dogal ba pare mu naqadi ko ci xolam xale mën na faa jaare sax di def lu bon wala mu wax yàlla lu mu ko war wax looloo bon kon bëgg yàllaa ngoogu mooy nga dem balu yàlla dogal neex la soo ko defee nag wax ma doo jaar ci lu metti de waaye mujj ga yépp lu neex lay doon te lu métti li lu neex daf cee rax te sa fin it mooy aljana yàlla digal dugal sew ndey daw ci ron noonu lay fayu bëgg yàlla di mel waaye wa ma ne tawala ku dëddu bëgguur yàlla nu azibu danañ ko mbugal azabun mbugal aliman bi aji méttal yaramam bu fekkee da ngaa wane gannaaw bëggoo yàlla yàlla dana la mbugal mbugal moo xam ne nii dafay méttal sa yaram ak sa xol ci àddina ak alaxira ndax yàlla dana dogal mu di la naqadi mu di ko dogal fa fos doo ci man dara àddina bi yàllaa ko moom nañ nangul yàlla boo demee ba am mbir jaaxal la lu tax mu am jébbalul parce que bu fekkoon ne lépp lu yàlla dogal mën nga koo comprendre kon yàgg yàlla xem mais yàlla daf laa sut xam-xam moo tax mu mën a def lu la jaaxal loolu waral moom laa yusalu ammaa yafalu wa hum yusaluuna buur boobu kenn du ko laaj li ngay def ko teg ñun la ñuy laaj ndax du lum def ñu mën koo comprendre suñ xel xeggul foofu. gannaaw gisoo sa doom bu ndaw bële. boo tëralee dara ci kër gi doo ñëw naan ko ah, boo gisee ma wax lii sa yaay ak boo gisee mu def lii lii moo tax nanga nanga da nga ko wax xale bu ndaw bu feragul xamu ci dara di xale bu ndaw koy bu feragul nii ngoy def ween tàllal ko ween mu nàmp moom yooyu la xam waaw waaye nga di ko expliquer li ngay def foo ko teg mënu koo xam même xale boo xam ni fer na nii xàmme na mën naa wax waaye yeewoogut xam nga doo dem di ko expliquer yenn yi parce que du ko comprendre bal sax nit mën naa dem ba nekk mag nga jàng benn domaine am ci xam-xam mën ngaa toog fii ba ngoon di ko expliquer du ko xam parce que jàng ko xelam mënu ko comprendre ndax jàng ko hmm? te am na koo xam ne boo ko doon expliquer dara ci naxu xaal ak yooyu mën ngaa wax ba dee du ci xam dara parce que jàng ko hmm? boo doon boo doon docteur di expliquer benn waay yenn affaire ci wàllu docteur lu mu réeree xel mën naa toog ba guddi jot du ko xam parce que jàng ko amul ci xam waaw bu fekkee nag yow sa morom moo mën a taxaw di xam loo xam ne yow mënoo koo xam jëru mënoo ko expliquer kon nag yàlla foo mu xam yàlla moom bu xamee loo xam ne nii bu defee kon nag du euh, yàlla li muy def it yow mën na ko comprendre bu laaj yàlla li ngay def foo ko teg daa mënoo xam ne gërëm rek moo war sa digganteeg sa borom lu mu dogal nga ne baax na lu mu nga ne rafet na gumba tax lu bëgg ko tëri ko topp loolu la yàlla santaane soo dul fàttali waxaale wax na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam moom mosam dërëg mosa yonent bi nee na laa yuminu du gëm ahadukum kenn ci yéen xataa akoona lu may mu nekk ma nekk ahabba di gën a sopp ilay jëm ci moom min waalidi ci ay waajuram wala di ak doomam war naa si ak nit ñi aj maa ngi leen mboolem seen yonent nee na balaa seen gëm yàlla dëggu ngeen dem ba nga xam ne maa leen gënal seen waajur gënal leen seeni doom gënal leen nit ñëpp gënal leen seen bopp fekk tolloo fii rek gëmoo gëmagoo yàlla gëm yàlla matut balaa sa gëm yàlla mat yonentu moo lay gënal sa bopp mbiram yonent it moo lay gënal sa waay juur mbiru yonentu moo lay gënal sa mbiri waay juur yonentu moo lay gënal sa doom mbiru yonentu moo lay gënal sa mbiri doom yonentu moo lay gënal nit ñëpp mbiru yonentu moo lay gënal mbiru nit ñi lii mooy gëm ak a nag ah du ñàkk benn waaye ne waa léegi lii moom fu ngeen ko teg sama bopp ma la gën a du bañ naa la du ñàkk ko wax loolu waaye loolu léegi olof la jotewut ak lislaam dara sama bopp ma la gënal du bañ naa la ma ne léegi olof la jotewut ak lislaam dara li tax xikmatu bi tax ñu ne yonentu moo la war a gën a lépp mooy ne yonentu sallallahu alayhi wasallam mooy garab gi lu dul moom banqaas la banqaasu garab mën nga koo dagg beneen banqaas jébbi waaye garab gi moom boo ko daggee lépp a yàquwaale yonent nag mooy garab gi ñëpp moom lañu war a sàmm bu baaxee rek lépp baax waaye bu yàqoo dara du baax ci loolu waral ko am xel ku nekk garab gi moo lay gënal banqaas banqaas bi sax garab gi moo koy gënal boppam ndax moom garab gi moo tax muy nekk moo ko meññil moo koy tëbb léppam ci garab gi la aju bu garab gi yàqoo ko mu mel ni rek ka taxaw ne Sénégal moom ma gënal diw diw kenn la Sénégal moom mën naa yàqu teewul kenn remplacé gu Sénégal baax waaye Sénégal bu yàqoo ñëpp yàquwaale ko am xel réew mi moo lay gënal ab koom-koom wala ay nangam benn benn yi nekk ci biir réew mi parce que réew ma leen ëmb ñoom ñëpp ñoom ñëpp boo leen boolee loolu mooy réew mi yonent bi sallallahu alayhi moo ëmb lépp ki nga xam ne ni yërmaane gu jub ci moom la jógee wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina ki nga xam ne nii ku xam nga gis ko rek ci leeram la xamee ana minallaahi wal muminuuna min nii bàyyi ne tegg na siraatu la waaye lépp ci moom la jóge kooku boo bëgg du koy bëgg koo xam ne yow boo xamee moom moo tax nga xam te ba léegi bu fi jógee woon yow nga jógee fi banqaas nga rek ci moom xam nga yonantu moom a gën a lépp nu mu melam ah, man de Ousmane am jàmm moom a gën a noppam ba Ousmane am a gën a nopp ba loolu la mel waaw nopp bi moom lenn la rek ci Ousmane waaye Ousmane moom ëmb na nopp ba bët ba làmmiñ ba tànk ya loxo ya yooyu yëpp buñ amee Ousmane a tax ñu am buñ yëngatoo ci kàttanu Ousmane la ñuy yëngatoo Ousmane amatul rek yooyu yëpp day day kon kay ko am xel kay Ousmane ngay bëgg waaye hmm? nopp yeeg yooyu sa yoon nekku ci fonk nga ko nii parce que Ousmane la waaye Ousmane la ko gënal ndax moom moo tax ñu nekk te moo leen moo leen jox yonent nii la meloon mbindee fi de ko fi dof doflu jël sa bopp teg ko ci kaw yonent sallallahu alayhi wasallam yaa ngi mel ni rek banqaas bu nekk ci garab ne man de banqaas bi moo ma gënal garab gi na garab gi yàqu waaye man sama yoon nekku si kon booy bëgg bëggal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bul bëgg sa bopp bëggal yonent bi rek boo bëggee yonent bi nag yaa ngi door bëgg sa bopp dëgg ndax moo tax nga nekk te may gi am moo la ko jox wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin la ko yàlla wax taggaat ko ci alquran wala ne moo fi njëkk lépp qul in kaana lirrahmaani waladun fa ana awwalul aabidiina mu ne ah yàlla bu amee jaam bu amee doom ji ñuy jaamu yonent ne kon kay maa koy njëkk jaam moom moo fi njëkk yonentu moo fi njëkk lu tax mu ne mooy njëkk a jaamu bu dee yàlla am na doom kon moo ko war a njëkk a jaamu ne fa ana awwalu abidina mboolem kuy jaamu yàlla maa la fi njëkk kon loolu laay bi ana abidina googu kooku alla al googu lil istixraax la booy jàng usul dañ la wax ne al googu bu duggee ci baat dafay tekk al umum maanaam mboolem kuy jaamu yàlla fa ana awwalu kulli abidin lay firi maa fi njëkk mboolem kuy jaamu yàlla loolu awwaliyatu nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy tekki njëlbéenam ki fi njëkk lépp nag kooku ñaam ñëpp ci moom lañ jugee te bañ jugee ci moom génn ci moom moom la waaye tag fa nachatuhu kanziyatul xaqi waxdahu lidaka atana qasiman aw muqasaman mu ne yonent bi moom rek moo jugee ci yàlla moo tax moom moo ñëw di séddale te moom mooy lañ séddale bàyyi ma bàyyi wax jooju waaye dama bëgg wax ne moom lañu war a bëgg nga nu wax من بقول يوم تبغين بق وتباي ميكو خم دفع دم دفع دم دفع دم بنا بفو أكلي وشرابي من لما يأكل لما ينام تغير أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خيرات وحسالي سمو جونغ ما يسخ مملا تيس فوالله ما في القلب حظ لغيره ولو كان أم كلثوم ولو كان مريم ما يمكنش يا سمو خول كان أم تتشير لما ينتبه صلى الله عليه وسلم دير أم كلثوم دير مريم الله. moo xam ay soxnaam lañ ay doomam lañ wala boo def bu xam ne lu lu nit fort fort ci man amul ceet si sama xol lu ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw gi mën nga mu bëgg keneen nag fekk yonent la bëgg war nga xam yonent bi sallallahu hmm? bëgg kon su ko defee kooku mooy ki ñu war a bëgg gannaaw boo bëggee yonent bi tamit waaye waaye mbiram yonent na la gënoon mbiram lépp mbaa xam nga ne ñu si àddina soo xam ne boo xoolee ba sa bët raw ay parti politique rek ngay gis baax na nag waaye kenn ku nekk am na lu mu jublu mbir mu nekk rek xam na mbooloo mu ci jublu di ko liggéeyal waaye mbiram yonontu amul kenn ku ko jooyal buy tumuranke buy dee it kenn ku ko jooyal xool leen ñu ngi ci Sénégal goo xam ne nii xam ngeen ne xam-xam a dellu gannaaw bu baax lislaam mu fii tumuranke bu baax waaye tey dëkk boo gis am na mbooloo moo xam ne dëkk boobu rek ñoo leen intéressé ak waa dëkk boobu ba ku ci liggéeyul sax ñu yaakaar ne baaxutoo te dem nañ xool ngeen di xool association yi am na association boo xam ne dëkk boo gis rek am nañ mbooloo moo xam ne ñoom li jëm ci mbirum dëkk boobu rek moo leen intéressé baax na nag waaye dëkk bu tumuranke wul léegi parce que am na mbooloo moo ko liggéey ba ci liggéeyul daayira boo gis wala këru diine koo gis am na mbooloo moo xam ne daayira boobu rek moo leen intéresse wala këru diine googu ba ci deful sax yow baaxatul yi parti politique yi nga gis sax am nañ mbooloo yoo xam ne ñu ngi ci jublu ca ngir lu ko doxal ba boo bokkul ci parti boobu doo dara yow yan mbooloo ngeen gis ñu taxaw samp ngir xam-xam des ci réew mi gis ñuy jàngatuñ dañuy business ñan ngeen gis ñuy taxaw pour njub gi carrément ni mu nekkee woon ci jamono yonantu des ci réew mi dara gisu leen dara waaye am ngeen liggéey def leen foofu loolu gën a foor lépp moo tax yéen ndaw ñii di jàng bu leen bokk ci benn daayira bu leen bokk ci benn parti politique bu leen bokk ci benn association pour nangam parce que yooyu yëpp am na ñu ñu ko taxaw am na ñu ko jooyal dem leen ngeen xool fi nga xam ne moom la yàlla gën a bëgg te amul kenn ku ko jooyal ngeen liggéey fa yéen def leen fa seen xaalis def leen fa seen yitte def leen fa seen waxtu def leen fa seen temps ba dëgëral ko parce que boobu ko jooyal nit ñi leen wax ne a beru yéen bokku leen ci nangam bokku leen ci nangam bokku leen nangam bu leen corrigé fenn yéen yéen am na fa nga a dugg maanaam naam ñu jug ngir liggéeyal xam-xam ndax loolu mooy mbiram yonentu sallallahu alayhi wa sallam mbiram lan la xam-xam leen rek la wax yàlla doole ma ko waqul rabbi zidni ilman bu leen bàyyi mbir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dëkk ci mbiri ñeneen ku nekk parti bu nekk am na ku ko jooyal waaye kuy jooyal xam-xam léegi bëreetut kuy jooyal islam bëreetut kuy jooyal yonent bi bëreetut concentré leen ci loolu liggéey ko dégg xatta seen mbir waay jur bu sampoo lu seen yoon nekk taxaw leen ci mbir yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaw ma nag da ngeen ko def am nu ngeen ko def man loolu laa gëm ba seen mbir bàyyi ak seen mbiru waajur yi samp na waaye bu affaire bi bu nee ba nga xam ne lii xaw naa niru parti politique demal sa mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga liggéeyal ko sa doom bu taxawee mbiram taxawal romb ko fa nga dem ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbiru nit ñi bu taxawee romb ko fa nga dem ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que loolu rek moo amoon ku ko jooyal yeneen ñëpp am na ñu la fa wut hmm? def loolu nag mooy gëm yàlla gu mat sëkk waaye ah lii de sama mbiru baay la aywa ñëw leen ci mbiru sëriñ bi ñëw leen ci mbiru sëriñ bi ñëw leen ci mbiru sëriñ bi def leen nii def leen naa def leen naa te boo xoolee boo xoolaat ko ba ci biir biir da gis ni ne daanaka affaire bi nekkatul islam hmm? parce que mbiru baay tamit su mbiru bàyyi la tamit waaye da nga xool léegi ñen ñoo fa nekk lan lañ xam lan lañ mën a jëriñ lislaam ku toll ci jàng ngeen ne ko na jàngale mooy lan jamono bi tey mooy loo xam ni tey man mi bu ma école bu mag ma am fi njaboot ëllëg ma jógee fi sama doom ji nga xam ne si jàngale tool xamagul xam-xam dañ naan léegi moom mooy école moom mooy jàngale loolu lislaam la war wala ndono la loolu lislaam la wala ndono la yu mel noonu bu leen si dugal seen loxo parce que du lislaam ku toll ci jàng dafa war a dem jàngale jàngi ji ba xam xam-xam bu ñëwee samp taxaw ci mbiru baayam du mbiru baayam loolu mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom jàng na war a jàngee xam na li mu war a xam ma ngay liggéey fu war a liggéeyee loolu moom mbiru yonent la baayam yonent doon liggéeyal ba jógee fi mission bi waaye bu dee doom ji ja doom ji melul ni baay ja mujj samp ca place ba di liggéey affaire ndoona la waaye nekkatul affaire yonent bi sallallahu leen a seen loxo bu ñu leen xooyee ci dëkk baax na su ngeen si mën def def leen ci waaye su ngeen xamee lu ngeen war a liggéey tam doo leen sëkk tam nekk mbiru yonantu bàyyi leen dëkk ba ñu liggéey yéen ngeen liggéey ci mbiru yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu leen xooyee ci ab daayira dégg nga daayira boo xam ne ni sëriñ ba jàngalu leen dara benn daf joxu leen ko leen dara waaye daal siiw na daal am na dara ñu ne waaw daayira nangam daayira nangam def leen nangam te fekk xam-xam nekk fii ngeen war koo liggéey moom fay def seen xaalis romb leen fa daayira ba ngeen def ko ci mbiru yonent loolu moo xam ko liggéey ci jamono ji yéen ma déggam ba ba pare bu bu ngeen faale nit ñi du ngeen liggéeyal yàlla ku bëgg liggéeyal yàlla dafay gëm mu tax lu nekk ci lu baax rek moom xam na ci lu nekk am na ku ko jooyal waaye lislaam day sant amul ku ko jooyal jooyal leen yow yow may déglu nii jooyalal al-islaaha ma istata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa